nga xamante ni ndaw ñi ak jeunesse bi ak chef d'entreprise dañ koy xaar parce que réew mi dañ koo maintenir ci environnement politico politicien ba nga xamante ni wàllum koom-koom ak wàllum développement économique kenn du ci wax te loolu mooy développer dëkk mënoo jëlee ndaw yu Sénégal gëmloo leen politique gëmloo leen politique politicien ba nga xamante ni kenn xamatul lan la ñu fi di nuyu loolu boo waral 7 Afrique à chaque fois dafay génn euh, sawar a génn ci poser débat économique moo tax. Euh, ki nga xamante ni mooy njiitu réew mi Macky Sall bilan économique bi nga xamante ni def na ko ñun dañoo xalaat ni bilan bu baax na wax dëgg fa neex yàlla lépp baaxul parce que àdduna lépp mënta baax waaye am na loo xamante ni baax na ndax wàllum réalisation gis nañ ni góorgóorlu la ci ak wàllum infrastructure te ren si événement bi dañoo jël thème bu am importance muy les enjeux de la mobilité au Sénégal ndax Sénégal fii ki ay fan dina nekk benn réew si réewu Afrique nga xamante ni am na berte am na TER am na compagnie aérienne am na saxaar boo xam te ni dina bàyyeekoo fii jëm Mali te yooyu yëpp amu fi woon donc ci wàllum infrastructure dañ ciy gërëm njiitu réew mi waaye itam di ci gërëm son ministre de de des finances et du budget monsieur Abdoulaye Daouda Diallo bi nga xamante ni en avril deux mille euh, vingt ñu ngi woon ci taux de croissance de un virgule cinq pour cent ba ñuy wax wàllum récession mooy mooy réew mu naxasaay sur le plan économique waaye tey gis ci ñaari at. ak si plan de riposte bu ñu def muy plan de riposte bu baax 1000 milliards ñu mobiliser ko 1000 milliards moo nekkoon budget Sénégal 2003 te mobiliser nañ 1000 milliards def ko ci économie bi pour que taux de croissance bi yéegaat ba 5 pour cent. yaa sax waaw dañoo gis ni chef d'entreprise yi nekkuñu benn loolu moo tax ñu jël parrain euh, président Babacar Ngom bi nga xamante ni moo créé club des investisseurs sénégalais di ku am jom di koo xamante ni jeunesse bi wax nañoo roy ci moom. pour moi la jeunesse doit prendre le président Babacar Ngom comme référence et le président Macky Sall aussi et donc loolu moo tax jeunesse Sénégal war nañ jël président la Macky Sall comme référence jël président euh, Babacar Ngom aussi comme référence parce que c'est deux Sénégalais yoo xamante ni servir nañ seen réew ay exemple lañ ay référence lañ ñun nag par parlo bi mënuñu ko topp parce que ay chef d'entreprise lañ dañuy observer situation économique bi parce que loolu moo ñu amal njëriñ te économique pour mu développer dafay aju réew mi stable loolu moo tax jeunes yi nañu xool ñi nga xam ni ñooy jëf te ba nga topp ñiy wax. wax yorul réew. génn noppi ngeen ngir défendre bilan économique du chef de l'État. noppi nañu pas défendre bilan économique président de la République parce que le président est suffisamment défendu par son parti mais noppi nañu ngir encourager président ngir mu yokk. li nga xamante ni moom la nekk di def gis ngeen stade bi keroog bi Sénégal dalalee Égypte ñëpp am mbégte ci stade bi nga xamante ni def na ko fi keroog bi nga xamante ni terre bi daw na jëm jam ñaajo su nekk nii la terre est en train de desservir beaucoup de villes est en de réduire les embouteillages te embouteillage dañu doon perdre presque milliards kon dañu wax ni président bilan économique bu mu am bilan économique bu baax la loolu nag bu ñu ko waxee c'est pas parce que ay donc maa ngi leen di gërëm di leen sant di woote vendredi 6 pour troisième édition Meetup Set Afrique wasalaam